ginnaaw bu nu bàyyi ko ci diaspora bi àndoon ak euh, lenn ci waa Afrique lenn ci waa Europe euh, nu fekk si waat sunu kilifa yi fii sëñ Abdou Lahi Mbacké moom sëñ Ndam Atta nga xam ne liggéey bi bokk na ci coobare sunu borom këram fa lañ ko njëkk a daje mu mel ni ni ko ñenn ñi waxee. ci ñi sos mbir mi la bokk muy membre fondateur donaat ci kilifa nekkaat ci comité directeur bi bokk ci kenn yi ngànk liggéey bi sëriñ bi mu mel ni dox nañu lu tolloog benn at ñaari at bu ñetti ñetti manquet li bariwul te ñaare euh, mag su taxawalee dara mu daw benn ba ñaari at lu ñàkk mu jàngat xool lim bëggoon bi muy taxawal lii lum ci am lim bëggoon bi muy taxawal lii lu ci des lan la yaakaar ne moo ko moo tax mu des ki ak nan lay mën a def ba loolu mën a jàppandi tey bu nu bëggoon yu mel noonu ngi ñëwal nu ci euh, sëriñ euh, Abdoulaye lan nga ñuy wax ci loolu. di sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Seexuna Ahmadul Xadim mi nga xam ne tey. moo nu xamal lu baax xemmem loonu ko waaye dañu ci soññ itam saa su ne euh, li nga wax nag alhamdulilah kon tey ñu ngi fii ci quartier général lu Touba ci kanam ni ngeen ko waxee fii ci place de la nation bi nga xam ne Sénégal yëpp ñoo ko bokk ci fan yi nga xam ne ci la sëriñ bi nekk Ndakaaru sëriñ Touba di fi yëngu ci boor bu ne ba ñëpp xamandoo ko lépp jëm nag ci pay gu ko yàlla sunu borom di fay rek ci liggéey boobu mu engagé woon doon ko liggéeyal yàlla sunu borom ci toolam bii di lislaam te jëwriñ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal ci biir histoire liggéey boobu indi woon ko mu jaar fii ci ay jamono yu xat yu metti woon ci moom ci loo xam ne la sun borom fayee tey muy jumaa ji nga xam ne moom lañ fas yéene daloo suba ñu ciy ndokkeel jullit yëpp di ci ndokkeel mboolem taalibe murid yi nga xam ne nii euh, ginnaaw yàlla noo ko fi taxawal ci barkeb sëñ Touba. di ñaan yàlla ñu julli ko ci jàmm te dolli ci ay yeneen ak yeneen ak yeneen i liggéey te lépp ñu daje cee ngërëmul sëriñ bi ah ni nga ko waxee nag Touba ca kanam liggéeyu sëñ Touba la. mën nañu wax ne jëfi sëriñ bi sëriñ bi moo ko def. waaye itam moo koy doxal noonu nga ko waxee léegi yàlla dogal na ne ñun ci membre fondateur yi lañu bokk bi muy juddoo ci sunu kanam ñu di ci nekk ngir jëmbi sëñ bi di ci dox ba yegg si fii liñ ci mën a seere te wér nu mooy ñun ñëpp ba ñuy départ ñu woon ne lu mën a yegg si fii la bañ ci duggee itam te pas-pasu liggéeyal sëñ Tuubaa rek dugal ñu ci yàlla dogal na ne sëriñ bi moo ko orienté di ko wommat di ko doxal ba mu egg si fii mu yegg si tey man loolu laa ci jàngat muy lu mu wér. loolu nag moom lañ ciy dalale sunu xel saa su ne ah, di wax ne li ko indi fii moo ko yóbbu ba fépp fu mu war a yegg rek mu yeggale ko ndax nun ñi nga xam ne dañ koo dund mu sosu ci sunu kanam nu di ci dox ba yegg si ci fii liñ ci jànkoonteel ci loo xam ne wóor nu ne loxob sëriñ bi moo ci dugg. buñ ko doon lim tey jii du jeex mu wér nu ne lii jëfi sëñ Tuubaa mu nangu la moo ko moo ko jur moo ko dundal moo ko orienté ba mu yegg si fii mu yegg si tey jii loolu moom daf noo leer naa ñi moom. li ci ëpp solo nag ci li nga wax ne fañ tàmbulee ak fa mu bëgg a yegg ak fii ñu tàmbali du lu wenn du lenn lu weesu ñu wéral sunuy pas-pas. ci ne liggéeyal sëñ Touba rek ci dëkkam bee moo ko tax a jóg ndax loolu mooy lépp mooy xos gi ndax sëriñ bi dafa ñaan yàlla sunu boroom liggéeyal ko itam te ñu gëm ne liggéey booba nangu na ñaan yi nangu na mu bokk ci ñaan yooyu mu ñaan yàlla sunu boroom muy dëkkam bee di Touba nga xam da koo fàkk rek ngir jëmmi yàlla ak ngir jëmmi lislaam ak yonent bi sallallahu alayhi wa la nga xam ne nii moom la amoon yéene ci dëkk ba. ginnaaw bi mu ñaan ko fa yàlla boroomam képp koo xam ne ni ñëw nga sofu ci yéene jooju sofu ci ñaan googu te la ngay def nga sellal ko teg ko ci yoon dara bañ cee génn lislaam na la wóor ne fa nga bëgg a yegg da ko weesu <coughs> ndax ndax ci biir ñaan gu nangu rek ngay dox loolu mooy li gën a wér ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi kon xos gi mooy am yéene ju sell ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkkam boobee dox bi mooy teg ko ci ak njub gu wér ak diine ak njàngaleem Serigne Touba jëm gi fa mu war a jëm nag mooy passif saa su ne ngay gën a jaaju ci di gën a am passif ci xam ne kii nga xam ne nii moom nga sóoral <coughs> lii nga xam ne nii moom ngay liggéey ab liggéeyam mën naa amub tàmbali waaye amut fu mu yem danga nga cay xala nekk rek nekk ci yéene ju sel te sa xam-xam may la nga xam ne mbirum sëñ Touba fu àdduna yem foofa lay foofa lay lay jëm kaw mm. lépp looy def nga sóoraale ca loola. teg ko ci aw yoon suur ni la war a deme da nga caa war a nekk ba bàyyi ko fi bàyyee ko say doom ak say sët sëtaan ñu di ko doxal nga fas yéene di ko doxale noonu alhamdulilahi rabbil alamin Touba ci kanam nag noonu yi la demee ñi ci nekk xam nañ ne sëriñ bi moo leen ci dimbali bañ man cee ne xam nañ ne itam sëriñ bi moo leen di dimbali moo leen di orienté dimbali na leen itam ba nga xam ne nag ba mu tàmbulee ba léegi képp ku mas a jóg seen liggéey bi baa nga dégg ko wala nga dégg ca dara ba dugg ci te pas-pasub kese dugalul la ci yaay jekki-jekki dem ba xam ne lii mënuma cee dem nga taxaw noonu la noonu noonu la mbir mi demee kon sëriñ bi moo ko sos waaye moo koy doxal waaye moo koy womma di ko orienté bi fañ bëgg mu yegg bu dee ci liñ mën a xam nag ci wàllu zahir mooy liggéey bi sosu na di liggéeyu sëñ Touba mu jëm ci mbooleem murit bu amoon yéene lépp lu sëñ tuubaa bëgg nga defal ko ko ci dëkk bi te mëne woo ko na nga ko yéenee aw yoon a ngi nii waxam ne ku ci jàpp ku ci ñëpp jàppee lépp luñ bëgg danañ maase ci def ko te su boobaa ku ci jàpp ko ne dana mel ni mel yow yaa ko def mooy way ji waralul sëñ Touba weer wu ne ñaar téeméer su ci mbooloom murit maase ba toll ci deux millions de personnes wala lu ko ëpp weer wu ne ñu mën a am deux milliards at mi ñu mën a am vingt quatre milliards lépp loo xam ne alal la koy def biir Touba rek ñuy jël ci alal jooju di ko ci def ci bépp domaine nag. loo xalaat rek wàllum njàng ma wàllu assainissement wàllu éclairage sécurité santé ak leneen loo xalaat rek ci loo xam ne ni ab dëkk dana ko aajowoo te ay koppar ko def lii aw yoon la wu ci gën a gaaw wu leer nañ la yi gën di ndimbalit mooy ginnaaw bu loole lépp nga xam ne xalaat la bu juddu ci sunu biir ñu fas ko yéene porte di ko doxal ak ndimbalu sëñ Touba ñu teg ko ci yoonu njub wu leer nañ ay nag mbirum sëñ Tuubaa la moo xam ne nii xëy na ku amul sëriñ bi amoo pas-pas bu mel ni bii ñu am ci ku mel ni kii ñu am ci suñ kanam nga xam ne moo ñuy jàjji saa su ne euh, tax ñuy def gënal na suñ lépp xëy na su boobaa ñoom loola moo leen di manqué waaye Tuubaa ci kanam daal li may tënkewaat mooy sëñ Tuubaa moo ko juddulu ñaanuk sëñ bee ko jur moo koy doxal ba mu yegg si fii te moo koy wommat ba ba muy yegg feneen fu mu war a yegg incha allahu taala te loolu ñun ñi nga xam ne ni yàlla dogal ne bi muy sos sunu kanam la ñu di ci dox ba yegg si fii loolu leer nañu nañ leer nañu ne am na aspect zahir boo xam ne nit ñu taxaw la am passeef am ay xel am ak xereñ liggéey bi jaral leen ñu nekk ci sëñ Touba jaral leen ko waaye wóor na ñu itam am na aspect baatin ndax toujours fu ñu yegg fu ne dañuy taxaw rek gis fa suñu bopp ginnaaw suñu yéene ak suñu volonté wóor na Sëñ moo ñu indi fi kon loolu moom mooy li nga xam ne ni moo ci am ñuy wéy di ci tàllal suñu loxo mbooleem jullit ñi waaye mbooleem taalibe murit yi ñu ñëw gën cee jàpp rek ci ni ma ko waxee woon ku am pas-pasu lépp lu Sëñ Tuubaa bëggoon nga am ci sa poos loo ko mën a defee su fekkee yàlla dogal na ñu ubbi yoon woo xam ne nii ku ne mën na ko lu waaye tële tële mën nga 1000 francs par mois nga góorgóorlu ba fas yéene mel ni loola sa yëfi bopp la bul xaar ku la ci woo boo ci duggee itam bul xaar ku la ci soññ defal yitte ci la nga jaayanteeg sëñ waa muy mille francs par mois nga fexe ba di ko def saa yoo ko waree def nga def ko fu mu kees nga nekk nga fexe ba yegg fa dugalal ko fa so bu mu wóor la ne sa yéene ji egg na te nga fas yéene sa giirug dund nga ne ci bu ko ñëpp defee rek léegi lu ñu bëgg ñu amee ko nañ ko bëgg ndax fi mu ne nii ñi ngi def ay waaye ñi ngi tollagun ci. tey mën nañoo wax ne ay soixante dix millions par mois en moyenne soixante millions. cinquante soixante soixante dix millions. waaye projet bi ñu am par mois mooy deux milliards par mois te gis nañ ne ak loolu ñuy am noonu ñi ngi def ay résultats tey li ñu am ci ay chantier ñaata la. am nañ lu ëpp cinq chantiers yoo xam ne yëpp a ngi dox benn taxawul weer wi passé li ñu dépensé ëpp na li ñu am ci weer wi kon ñun ñu ngi dox ak yooyu yëpp nag mi ngi gën a aju rek. ci doxalin wi ak gaawaay beeg euh, résultat yi ci nit ñi jàpp ci xam ne lii liggéeyu sëñ Touba kenn moomu ko ku murit bu ne itam occasion la war a doon ci yow ci nga daw dugal ci sa loxo fas ne kenn man la cee man ndax ku ko seetaan moom yaa ngi seetaan loxo xamul loolu daal mooy li nga xam ne nii mooy mooy wax ji euh, yoon la wu sëñ bi ubbi daal ngir bëgg koo dimbalee nit ñi ndax man dama koy wax ne sëriñ bi lum mën a am ci ku ko ko defarale ca dëkkam bee taalibe yi defal ko ko fa moo ko ko gënal ndax dañ ci ame yàlla amee ci ay tuyaaba amee ci ngërëmul sëñ bi ba pare sëñ bi am ci lem bëgg dama koy wax ne damay dogal ngànt saa su ne ñi nga xam ne ñoo yore dëkk bi ci wàllu administration ndax toujours dañuy gis alal ji nga xam ne ni dëkk bee ko moom buñ ko laaji woon jot ci ñu di ko fa romb duñ ko laaj lañ jot a laaj ba di ko jot sax mënuñu koo def ci dëkk bi ndax at mu ne dañuy ji budget bi dañuy dem ba at mi jeex mu des xaalis ca trésor te foo romb ci gis bi ci dëkk bi gis fa lu xaalis war a def te defuñu ko. ba ne dafa mel ni li sëñ bi waxoon ci mbat la bu faw say ni wax ne wa risq wa xij wa risqa haj al atyabal xalaali fil usri wal yusri ala tawaal loolu laa gis maanaam dafa am alal joo xam ne dëkk bi moo ko soxlawul. ci boppam loolaa tax ñooñu di jot ci alal yooyu te mënuñ koo def ci dëkk lii it ma gis ne sëñ Touba nangu na ko kon lii ñuy def moo gënal sëriñ bi ñu dem ca marché ba di fa laaj ay juuti ak ay patente ak ay taxi di ko def ci dëkk bi kon nañ jàpp ci lii ah te xam ne daal yoon la woo xam ne nii moo gën a gaaw ci liñ bëgg te ku ne mën nga cee teg sa loxo te doo ko yëg mu yegg fa mu war a yegg te gëm naa ne luy dem la te loolu moom am nañ ci sax yaqin